allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin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 والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى wa maa yuxni anhu maaluhu ida taradda inna alayna lalhuda wa inna lana lalaxirata walula fa andartukum naaran taladda laa yaslaaha illa alasqa alladi kadaba wa tawalla wa sayujannabuha alatqa alladi yu'ti maalahu yatasakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illaa ibtighaa'a wajhi rabbil a'laa wa lasawfa yardaa allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah rabbanaa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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. billahi min asseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahim maliki yawmi ddiin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraata almustaqim. siraata alladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala ddaalliin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 وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا جملة